asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñuy suivre seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar tey samedi 9 mai 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay yi comme ni ngeen ko amee chaque jour ma ko seq ak ba ci Gambie Birkelane FM ba ci ñu ngi leen nuyu bu baax a a baax di nuyu seen i auditeurs waaye nag ma ciy àndal ñi ma ciy àndal fii ci réew mi di waa journal sunu lamb ak journalu record duñ commencé ko nag ci journal bi nga xamante ni moom moo di journalu record tey nag moo fa xëy fësal ay mbër. ki nga xamante ne mooy Modou Lo Ama Balde fasal na Balla Gaye Boy Niang fasal na Papa Sow ak Siteu fasal na tamit ki nga xamante ne mooy Mame Diarra Mame jaara Thiang nekk promotrice moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw suñu jigéen boobu waaye nag dañuy wax après Covid 19 bi nee na dina tàng lool lool lool lool lool après Covid 19 bi daal moom jàpp naa ne saison bi moom wala boog làmb ji dina neex dina yëngu wala boog ci luy baax lay doon du am benn roq boo xamante ne day sedd ndax am na combat yoo xamante ne lu mënul ñàkk la ay combat yoo xam ak combat yoo xamante ne instant bi taxaw na ba pare ba taxaw ba pare nag ba mu ci njëkk bi mooy combat bu nga xamante ne mooy Modou ak ki nga xamante ne mooy Ama Baldé nekk combat royal nekk combat boo xamante ne journal bi na combat la boo xamante ne ñoo ngi koy xaar moo tax combat la boo xamante ne bokk na ci li nga xamante ne mooy jafal daay gi beneen bi nga xamante ne bokk na ci jafal daay gi mooy combat Papa Sow ak ki nga xamante ne mooy Siteu mu mel ni Abou Ndour moom la mu tuddee combat boobu mooy phénoménal confrontation ak lu mën a xew daal combat la bu nga xamante ne dana yëngu lool lool lool lool lool lool lool ndax ñoom ñaar am na lu ñu jot a wane ci li nga xamante ne moom mooy seen face à face moo tax mu jàpp ne combat boo nga ne moom tamit dana neex dana yëngu beneen bi nga xamante ne jàpp na dana neex dana yëngu mooy combat bu Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang moom moom jàpp na combat boo xamante ne lu mënul a ñàkk. inévitable la ko tuddee moom ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Abou Ndour mu war ñu Balla Gaye numéro 2 war ñu tamit ki nga xamante ne moom moo di Boy Niang yeneen soog yoo nga xamante ne jàpp na ni day neex lool lool lool lool lool tey yëngu ba tax moo tax pour yi jox leen avance mooy combat Gris 2 ak Abdou Diouf ñoom ñaar tamit ku ci nekk yaakaar naa ne jotoon nga avance ki nga xamante ne moom mooy jëy nekkoon di waajal far yàlla nag ñëw ak ndogalam moo tax mu jàpp ne combat boobu la moom moom tamit dañ koy xaar képp koo xamante ne nag jëla nga ci defet wala boog jëla nga ci victoire nekk nag amaat beneen nouveau plan de carrière maanaam nekkaat ci carrière bu bees tax tax ndax boo booy xool ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ci defet la jóge moom journal sunu moom journalu record bi fàttale nañu combat boobu noonu yeneen combat yi nga xamante ne taxawagul waaye nag amateur yi bëgg nañ ko moom ñëwaat na ci muy Sa Thiès mi nga xamante ne journal record tànnal na ko ñetti adversaire Sa Thiès contre Yékini Junior Garga Mbossé ou Reug Reug mu mel tamit yooyu tamit dina neex lool lool lool dina yëngu li war a neex bay yëngu mooy retour yi nga xamante ne ñoo ngi koy xaar ku ci mel ni Eumeu ñuy xaar retouram Lac de ñuy xaar retouram Tapha ñuy xaar retouram Gris Bordeaux ñuy xaar retouram ak ñeneen ak ñeneen retour Forza maa ngi koy xaar di xaar retour Malick Niang di xaar retour Yékini Junior retour Gouye Gui maa ngi koy xaar xaar yeneen i retour yoo xamante ne yuy neexal làmb ji la waaye ak lu mën a xew daal nañ ñaan yàlla corona bi jóge fi ndax bu fi jógee ko mu tàkk abu Ndour comme ni nga ko waxee kon nag na corona yu gaaw jeex ndax làmb jax neex yëngu ñoom Omzo bu Garga mën a bëggee ñoom Tuuti Yaay Sarr sama xarit yooyu Serigne Diour ñooñu yàllaa ma boole ñoom ak waa DTV yëpp mën a bëggee kii moom koor gi dafa mel ni dafa mel ni moom bëggee ci bu baax a baax a baax ndax bu nekkoon génne sant moom lekk bu baax dootu ko man moo tax instant bi ma ngay rey boppam ci fruit yi Ramadan ak ak ak ki nga xamante ne mooy Mame jaara promotrice boobu noonu nee na fruit daal instant bi ci lay reyee boppam. mu mel ne tamit xew-xew bi nga xamante ne moo amoon démb ca parcelle bi journal record ñëwaat na ci di génn ko àdduna ki nga xamante ne moom mooy Pape Modou mu ñu wax ne Eumeu Sène teewee na ko Balla Gaye numéro 2 Gris Bordeaux ñoom ñëpp teewe woon nañ ko ki ko teeweewul kay mooy Yaxya Joob Yékini waaye journal bi andi na ci ay leeral di wax ni nag dafa nekkul fi nga xamante ne moom mooy Dakar waaye di d'ici lundi incha allahu rabi dina ñibbisi dem yégge Modou Lo li nga xamante ne moom mooy njaalam ndax ku xam xam ko ak ki nga xamante ne moom mooy le roi des arènes Modou xarañ Lo di ñaanal rek mu yërëm way juróom bu nga xamante ne moo fi jóge xaare ko aljana ñu ñëw ci journal sunu làmb journal sunu làmb nag tey waa CNG la xëy fësalaat rek ñoom Thierno Ka ñoom Mouhamed Ndao Tyson ñoom président Alioune Sarr ak ki nga xamante ne mooy Ndiambe jóob ñoom ñëpp tey journal bi xëy na fësal leen waaye nag ñoom ñëpp kenn waxu ci kii wax kay mooy Djibril Seck mi nga xamante ne wax na lu yaatoo yaatoo la cours magistral de l' expert Djibril Seck de l'INSEP moom daal xëy na wax lu bëree baree baree baree bare ci li nga xamante ne moom rek moom mën a solution ci li nga xamante ne moom mooy làmb ji nee na nag la làmb moom moom mooy seul sport bu nga xamante ne wala boog seule discipline boo xamante ne instant bi moom mooy génnee ay millions yu dul jeex ci Sénégal du beneen làmb du beneen sport boo xamante ne moom moo koy def. leen tamit wax na ko maanaam poste président yu CNG moom nee na la nekkul loo xamante ne lu yomb la maanaam ne moom ni koy jàppee nii rek du lu yomb en tout cas daal am na loo xamante ne loolu la laaj am na ay xar kanam yoo xamante ne moom la laaj pour jiite li nga xamante ne moom mooy CNG bi leneen la nga xamante ne moom Djibril Seck wax na ko tamit nee na beneen défi mu instant bi nag mooy loola boog seen prochain défi mooy làmb ji nga xamante ne bi nga xamante ne danañ ko yóbbu fële ci ca ca ca jeux olympiques ya mu ne war a nag deux mille vingt deux ci xale yi moom daal nee na loolu défi la bu nga xamante ne instant bi moo ngi xaar moom moom mu ngi leen di xaar ñoom ñëpp wala boog mu ngi xaar làmb di xaar reporter yi di xaar mbër yi mu mel ni tamit loolu lu am ama am solo la journal sunu lamb xëy fësal ko keneen ka nga xamante ne journal bi xëy na fësal ko moom mi nga xamante ne chaque jour rek wala boog toujours mi ngi xaar li nga xamante ne moom mooy heure am moom Forza bu Fass nee na pare na pour bëre ak ki pour bëre ak Boy Niang pour bëre ak Gouye de Guiers numéro 2 waaye Forza moom yàkkamtuwu ci dara dara dara dara daal tëggu ndënd ak semaine lañ koy def neex benn naqari benn moo tax mu ngay jël temps bu baax a baax a baax di yokk cere dolli ñeex kii tamit mu ngi yokk cere dolli ñeex waaye problème mu combat daal la am gannaaw bu mu jógee ci ay ndam digganteem ak Falaye 2 digganteem ak Ndandi Fall mu nekkoon journal bi moom jàpp la de mën naa bëre lool lool lool mën na mbër lool lool macha allah waaye nag leen moo ko freiné mooy ay année balance maanaam ay année yoo xamante daal moom rek rek da koy toog moom nekku réel da koy toog du ko mën a bëre loolu moo freiné li nga xamante ne moom mooy carrière am kii moom journal bi dafa jàpp ni moom carrière bu freiné wul dana nekk mbër boo xamante ne mooy nekk mbëru Medina di ki nga xamante ne mooy Bébé Diène nee nañ après Gris Bordeaux après Balla Diouf wala boog ñoom jën kay rek bébé jën nag ma nga seen i tànk bi daal moom jàpp nañ ne moom moom war naa mën a li nga xamante ne moom mooy médina bi maanaam jox ko xar kanam bi nga xamante ne moom la ko ay grand frère joxoon ñu des ci journal sunu làmb rek ak ki nga xamante ne moom moo di wulli moom mi nga xamante ne instant bi borom waa di neexul moom la ñu wanaat di ñu wax ne instant bi nag moom ma nga ci ab euh, moom day joué ab film maanaam ab théâtre daal moom lay joué ca kéwal gi maanaam surtout Palu jaay boobu noonu wulli fa lay nekk di jouer li nga xamante ne moom moo di théâtre Balla Gaye mi nga xamante ne teew woon na démb nag dëju papa Modou Lo bi journal bi nañu ko rek di ñu wax ak Doudou Diagne Diecko Tafa Gueye numéro 2 comme ni ngeen ko wala boog Tafa comme ni ngeen ko gisee Lac de Guiers numéro 2 nga xamante ne moom moo di Eumeu ñoom ñëpp journal bi ñëwaat na ci kii moom da journal daa ñëwaat ci moom ndax da ko wër ba sonn gisu ko muy Serigne Modou Niang moom mi nga xamante ne kenn xamul fu mu nekk moo tax journal bi moo tey moo xëy tey di ñu waxaat ne raar na lool lool lool lool lool yéen moom du ngeen raar moo tax ñun duñu raar yéen ñuy suivre Lutte TV point com nekk ci Gambie yéen ñuy suivre Lutte TV point com nekk Sénégal ñu nekk Italie ak Espagne Europe bi yëpp États-Unis ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di nuyu Abdou Dramé di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Mor Ndiaye doomu ndayu Liiru Jaan maa ngi ko ziar bu baax a baax a baax Ramdaan Faxumaan bi maa ngi lay bégg lu bare bare bare gëj naa la dégg gëj naa laa gis Ramdaan wat sees Ramadane yow yaa génn ba yaa ñàkk sola waaye maa ngi lay nuyu ak lu mën a xew daal maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci réew mi di ñu sagoo ñoom Abdou Boukharañ loo maam bala Gaye Italie maa ngi lay nuyu di nuyu laay bu def Valdo doomu nday zéro dies maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Cheikh Bass boroom Kër Massar doomu day Pape Demba maa ngi lay bëgg lu bare bare bare bare maa ngi ñëpp di nuyu tamit nga xamante ne mooy Mor Jaxate waaye du ma fàtte Dame Mbeng Birane Mbeng Seydina Aline borom Dias ji maa lay bëgg lu bare bare bare bare Abdoul Mbaye naa la Yoro Kanté waaye du ma fàtte Pape Thior waaye nag du ma fàtte tamit ki nga xamante ne mooy Xatab Diouf Aaron Camara boroom Kaolack